asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci kàddu gi Baye Mbacke Madina loo di taalibe ci Cheikh bi sama buntu ci kër Serigne Sohaibou di Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Cheikh Sohaibou maa ngi nuyu kilifa kër gi Serigne Ibrahima Khalilullahi Mbacke ak rakam Soxna Fari Mbacke maa ngi nuyu Serigne Cheikh Bombali Mbacke maa ngi nuyu sama taaw bi Soxna Oumy Wade taalibe bi Serigne Babacar Si di ku bëgg lu baax maa ngi nuyu waa rajo Diaspora tu Sénégal kilifteef ga Soxna Mati Trois Pommes di ca boole aw jaw mi nga xam ne xamee ko foofa ci moom la aajow di nuyu Mouhamed Moustapha Yob ensemble pour notre sécurité Baye Sala Gassama groupe soppe Baye Mbacke 1 ak 2 mbokk yi maa ngi nuyu Baye Touba Lo borom studio bi nga xamante mi ngi rafetal liggéey bi fu ñu mën a jaar rek moom mu defar ci lu sedd suñu xol ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér aajo ju faju mbir mu jub soxna yi yéen ñëpp ñoo ngi leen nuyu muy faatu faatu yi dama andi yobanti bis bi parti puy ak nagoy Ndour soxna si mo borom këram di len ndokkeel ci seen tout tank bi ñu tudde ko Baye Sambay nga xam ay niti ordinaire lañ manam ay la lañ manam ay talib lañ manam ay citoyen ordinaire lañ Baye Sambay kat ñu rek lindi di tudde doom moo tax ngi lay ndokkeel yow soxna si xawma sa tur xaw ma sa turu boroom kër mais lii nga def ci moment bii nga xam ne dafa metti ngeen am tur tànk ngeen décider tudde ko Baye Sam xaw ma yaa ko sooke wala sa boroom kër mais def ngeen lu rafet def ngeen lu rafet keroog bi ma ko gisee ci fees bi maa bind ne warlul naa bébé bi mbubb di leen ndokkeel te di ngeen di xam ne lii ngeen def nun niti ordinaire yi nun baadoole yi nun taalibe yi nun ñi gën a xeebu nun ñi nga xamante nii nun nun lu fi nekk noo ko def nun nooy joxe ko ci yi lu ne ci àddina nun noo ko tabax nun nooy mottalikatu kóllëre yi soxna si yàgg sa tut tànk boobu ak sa borom kër boobu ak seen ñaari waajur yàlla na ngeen am njéggal yàlla na ngeen am yokkute yàlla na ngeen gën a amee xéewal def ngeen lu rafet def ngeen lu rafet di mu tale bay sambay limu representer ci rew mi deggo dara luñ ko fi tuddé deggo benn cër kilifi diini yépp maase may ko pat bi waxuma la ñom ñu tuddé ko dom dé du ko mas a am moom ci xéeti tarexé yi reconnaître né mom amna lu mu leen défal te kat Sam dafa am lu mu représenté bari waana nga gis sëriñ bo xam ab talibé ma ngay ci mbax di góorgóorlu ci njub di jàpp ak julli di xalaat lu baax Baye Sam a ko defar Baye Sam defar na junni junni junni sénégalais Baye Sam amaana nga gis sa taalibe ba soññeetoo ko sonnatoo ci moom doo tudd sëñ Sam ci kanamam fekk sëñ saam a ko defar saxiran wa baatinan amaana nga yéemu ci sa taalibe nag ak amuk taalibe ak a fonk xadara bi ndax Baye Sam buy wax dafa généraliser ñëpp moom ay waxam ñëpp a ko mën a déglu Baye Sam Mbaye wàccuwaay bi mu manqué Sénégal ak maa jaaxal xabru mbee da nga gis genn wàllu sénégalais koo di mu di fa dugg ab baadoolo la ab citoyen ordinaire la ab taalibe la ku amul lu muy représenté mais borom ndomba tànk duñ fa dem di siyaare xabru ba kilifa diine duñ fa dem di ko siyaare ndaxte kilifa diine ñi ci ëpp bu dee fii ci senegal jàpp nañ ne ku fa dem da nga ko yokk daraja moom daraja mat na matal na taalibe ñoo nekk di fàttali ko ay waxtaanam tëju seen biir nag di ko déglu suba ak ngoon ñun ñi ñëpp ci dexam la ñu naane jëriñ nañu wan nañu fi ñuy teg suñ tànk xamal nañu ne li ngeen di digle ci lu baax dee leen ko def li ngeen di tere dee leen ko moytu bu ngeen ko defut yàlla dana jël ñi gën a yées teg ko ci seen kaw ñu leen di bëlëfe ay bëlëfe rek a fi nekk bëlëfe maan bëlëfe maan te su boobaa ngeen ragal nag daw dugg ci jàkk yi di ñaan yàlla lu jariñ dara ñu doon wàccee junniy kaamil fanweeri junniy kaamil ah dana am lu ci xaw a jariñ de waaye nag la mu tee moom nit ñi bu ñu waree sóobu ci ndox mi rek sóobu dem Baye Sam defar na nit te gisu ko defar na nit saaxiram wa baatinam waaye Louga gee sax boo fa demee yéen waa luga sax wàccuwaay bi ngeen waroon jox bàyyi Sam waroon na ajjuma june ngeen wax wuti xabru mu dem toog fa siyaare ko génnaat mais bari nañu dëkk Louga sax boo leen ne xabru Baye xamuñu ko xabru Baye Jili Mbay xamuñu ko xabru suñu mat saxeer Mbay xamuñu ko xabru Baye Abbas Sall xamuñu ko niiwal googu nag jig na kilifa diine waaye nun loolu jigunu léeg-léeg nga ne roseet dem ba paal nga siyaare ji xabru alxaj rawaan ngom léeg-léeg nga ne roseet dem ba jaas xabru sëñ Babacar Njoon léeg-léeg nga ne Roseet dem ba nuñ ko waxeeti xabru Alaji Ibu Saaxo nga siyaare ko mbokk yi léeg-léeg nga ne Roseet dem ba Gab Jóob baay Sam lii la fi nekkoon di ñu won barab yu baax yi fi mat a siyaare di ñu won kan mooy doomu aadama waaye fi ne baay Sam nga dégg aw turandoo wu ko ahlu musulman yi tudde ahlu diine yi nit yi diine yi tudde ko doom dem di siyaare ji nga dem ci génn kilifa nga fekk mu teg ab rajoom di diglu Baye Sam nga dem ci kenn mu ne la mu xamal la ne la bàyyi Sam Baye Sam di ci waxtaan déedéet ndax fiiraange day am fiiraange jigéen rek fiirut diini sax dañoo fiirante ki ma gisoon daal mu bëgg ko te ko te xam ko Cheikh Abdoulaye Lahad ak Cheikh Mamadou Moutada ak Serigne Salihu Mbacke ambassadeur ibnu Serigne Modou Moustapha ak na ki fi nekkal sëñ Touba Cheikh Mamadou Muntaxa de de ko reconnaître ron bu baax bu baax bu baax bu baax ndaysan ak sëñ Mustapha Jatara mi nekk daaray kamil mbokk yi yéen ñiy dégg sama kàddu bàyyi saam kóllëre gi ngeen continuer jàpp ko continuer leen ko romb na nitug yàlla est-ce que du yonent nañ ko wormaal nañ ko waggar ndax yàlla xëy na danañ dem ba tudde ko école xëy na danañ dem ba tudde ko lycée wala université xëy na Louga danañ ko mas a jox cër xool leen ba mu génnee àddina ak léegi waa Louga ne silence ci moom ndeysaan am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko da koo gën la nga dàqe mu dem àll te nga dàq mu jëm ci biir kër gi la nga yootoo ji arab wa iran wa nangam wa nangam wa nangam waaye wax dëgg yàlla te nga jàpp sa bàyyi sàmm bii rek may ñaan képp ku dégg sama kàddu gi na nga ñaanal Baye Sam yàlla yokk ay leeram te na nga ñaanal tout tànk bii ak ndeyam jii ak baayam bi tout tànk bii nag yàlla na dund mooy ba fay bor ba tuddewaat Baye Sam ah soxna si de xaw ma fu mu dëkk xawma ma kan mooy sa boroom kër waaye li nga def bi ma ko déggee bërki démb sama xol bi dafa sedd bi ma ko gisee ñu piblier ko sama xol bi dafa sedd guy yombul de noonu baa doole yi dong ñooy tudde Serigne Sam Mbaye doom mais borom barke ministère yi kilifa yi député yi ñi xass ba amé ndomba tank am barke faté nañ te am na ñoo xam ne bàyyi leen défar té am na ñoo xam fi nekk ni déglu baye sam rek leena a défar ndax dëgg gi mu leen di wax ndax nga am adina ba pare nga fexé ba adina lula mbassati ko koku baye sam rek ma ci doy képp ku am cërub adina bañ déglu baye sam am liñ koy déglu di laqatu liñ koy déglu di laqatu fi la gis nga am nit ku mel ni mu jariñ la soxlaalu la dara fu nek taxaw na fa italo espagnol fu ne dem na lu ne gis na ko lu ne deg na ko bu ne defal nañ ko ko luñ ko daan wax tee ci jili me jili may ni mu am ala jilime may ni mu am xaalis ah nga top ci nit ñi rek di wax rek ah te te te te te fekk ne ñom ñaar jor ak chamoy lañ ñom ñaar ki guddi la di saaxir la ak baatin kii dafa feeñ ci xam-xam mais li ko yàlla dénk ci albaraka kii dafa feeñ ci alal mais li ko yàlla dénk ci albaraka doomi sëñ mat saxeer mbay lañ waaw sëñ mat saxeer ci boppam lañu waroon a jéem a jàng ndax nit ko xam nga tëdd fa mu tëdd waliyu njaambur ba noppi bàyyi fi ñaari leer yoo xamante nii hmm? xam nga ne alxaj ji li mbay ku ko am ba pare di yelwaan yi xam nga ne dese nga koo xam lugaloo ñu ne déet nga am babacar kebe di njuga ba noppi di yelwaan ñu ne déet nga am ñaari ancien président yoo xam kenn ku ne yaa ngay fayeeku mais ku ci ne yaa nga daw sa région dem dem ci région tubaab ya bi toog fa muy abdou diouf ak abdoulaye wadd doo leen mësa dégg ñu yendu kendal gu neex luga mukk abdoulaye wadd ñu ne tey jii ma nga kebe meer yendu fa ay waay ji tee mënu koo defal ngir yàlla abdou diouf ngir yàlla te nga dem ci sa palais be am fa ñetti fan sax ginnaat dem sagale ko waa Louga oh ñun daal moom wax dëgg yàlla dañoo sambalaa rek di suuxat réewum jàmbur rek France ba muy France ba nëgë ni Sénégal koy suqali rek loo am daw yóbbu fa luñ la fay salaire nga def ko ci compte ba fa toog kuy faatu faatoo foofa kuy faju fajoo foofa ku dee ñu yëpp ci kees andi ci yooyu France ñoo bëgg France ñoo xemem France ñoo doyloo France ñoo wóolu France ñoo sopp France kon mbokk yi sama waxtaanu tey di ci àllarba ji ñaari fan ci weeru décembre maa ngi ko jëmale ci tuut tànk bii ne leen ko bàyyi mbàkke madina loo awaka immigré yi 00 221 77 179 39 20 sopp na la bëgg na laa xam ba jox bébé bi yéréem wax dëgg yàlla man bàyyi saam lu ko waay defal man nii nga ko defal bàyyi saam bay lu ko waay defal cheikh abdoulaye mbacke nga ko defal baye sambay lu ko way defal cheikh mamadou murtada nga ko defal baye sambay lu ko way defal serigne saliou mbacke ambassadeur ibnu cheikh salih ibnu cheikh modou mustapha nga ko defal baye sambay lu ko defal cheikh mamadou muntaka nga ko defal fo tollu gis ay fatam mu and ak cheikh mamadou muntaha cheikh mamadou muntaha reconnaître ko kon mom ñetti serigne touba cheikh blat cheikh mamadou murtada serigne serigne muntaha ñu ñep reconnaître nañ fu mu yegg nag ba nëgë ni nun baadoole yii nun nun nun nun taalibe yi ñun la tey nag sëriñ si fu ñu yegg rek nun dongo yi la donga dafa am doole ci société buñ ñu xeeb buñ ñu daw buñ nu ragal ku fi des saw tur di dund nun ñii dañ cee bokk ku fi sa mbir sotti nun ñii suñu loxo da caan ñoo gën politiciens yi fuuf ñoo gën député ñoo gën ministre ñoo gën président ci yéen dañ leen di dundal ba leen di tudd ay doom seenu dund ak seen wute Senghor ndax dana am Hmm. nañ ko seet ba xam politicien bu faatu ndax des na ko tuddee doom ndax des na dem ci xabru ba di ko siyaare ah kon boo kilifay bàyyi leen xel nun ñii di taalibe yi nun taalibe yi ku ñu xeeb yàlla xeebunu yonent bi xeebunu ka nga yaakaar ka ngay tuddoo xeebunu wala ku nu xeeb nga wax nu ne xeeb naa leen su boobaa ah dana yéeme de maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo liir bi ñaanal leen ko xamu nu sant yàlla na gudd fan te am ndey ak baay ak i maam jërë ngeen jëf